ñu rafetlu woon beeg télévision Futurs Médias ñaari waxtu jot na xibaaru digg ba bëccëg gii ca lañu ci ak si kon la ca gën a fës Karim Wade fanaan guddeem gu jëkk ca rëbës rëbës googu nag ca biti dara fesul ni am na gan gu bees bu weesoo benn pick-up yenn ci takk der yu ñu fa teg do militant kon bu ñu nimiku ca biti Karim Wade dugg fa kon waaye it wetu fa ñan lañu ko jàppandool danañu leen gën a xamle ak ñooñu ñu ko dencandool ca rëbës ci mbir moom ñu naan enrichissement illicite euh, Bara Gaye moom gannaaw jàpp gi jibal nay kaddu jëmale kon ci euh, Macky Sall mu yëkkati ko ci émission bi di euh, faram-fàccee bu Pape Ngagne li waral parti démocratique sénégalais mënu koo wekk moom Macky Sall xamle na ko bokk ci joxe ci exemple ay passeport diplomatique yu muy jox ay góor jigéen waa APR kon daal di koy tontu ku demee ni Thérèse Faye jiite case des tout ni moom Bara bu noppiwul moom Thérèse dana siiwal kon ñan ñooy ay góor foofee Petersen marchand ambulant ya xam le ni ñoom ñoo lànk du ñu jóge kon euh, foofa ñu leen samp ngir jëm ci bërëb ba leen Xalifa Sall euh, la euh, suuf sa lañu ñu ne ñoo ko moom ndax maître Abdoulaye Wade moom moo leen ko mayoon kon du ñu nangu ku ko foqati seeni loxo mbaa di dakkal liggéey ba ñu fay amal ni ko nguur gi fi nekk santaane wàllu tàggat yaram ñu ci dikkit ci kanam tuuti na ko noonu yéenekaay yi la ñu xëyee tey ni tuut ñu yaatal lépp mbokk yi ñu leen di sant ci ànd bi ak télévision Futurs euh, Médias nañ leen ko waxee moom Karim Wade kon ma nga ca rëbës fanaan na fa nag euh, bi kon guddeem gu jëkk ndem sax euh, guddee nañu ko yóbbu foofa kon guddee nañu ko fa defeere tey ji nag ba ñu xëyee la ñu fa nimiku mooy ay visite ya fa daan am dara daal soppiku fa visite habituelle yi dispositif bu particulier it nimiku ñu ko fa bu weesoo xëy na yenn takk der yi ñu fa taxawal ak kon benn pick-up nit ña ngay dox eh, di dem ak ñëw di doxal seen visite fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru avril maanaam démb eh, ba ñu koy déplacé moom moom fi nekkoon jëwrin Karim Wade kon yóbbu ko foofu eh, takk der kon ña nga fa woon benn citoyen nag nanguwuñu woon mu jege kon ca béréb ya foofa kon la ñu ko daal di mujjee yóbbu nañ ko waxee guddee woon na loolu Ibou Diouf ak Aline Diagne di ci dellu si. oto bi moo indi Karim fi nga xamante ne mooy Rebeuss waaye tekk der yi nag fexe nañ ba nax yi nga xamante ne ñooy journalistes yi ñëwoon bëri fu lool ngir fekk si rek ñëw Karim Wade fi nga xamante ne mooy kaso boobu. jamono yi nga xamante ne journaliste yi ñu ngi taxaw ak commissaire bu rëbës di xaarandi rek Karim Wade dañ ko jaarale rek ci beneen buntu bi féetewoo ci wetu marché bi jamono joojee ñoom ñëpp ñu ngi taxawoon fees fi nga xamante ne rek mooy buntu bi féetewoo ci corniche bi. lu mot fukki waxtu rek ñuy xaarandi ki nga xamante ne mooy Karim wàdd bokk na liñ fa mënoon nemmeeku mooy takk der yi fa bari woon lool ngir fexe rek ba ab jàmmaarloo bañ fa am. militan PDS yi ñëwoon rek bëri fu lool police yi bi leen fa fekkee dañ leen laaj rek ñu jóge ci béréb bi. naka noonu loolu lu ñu defoon que ngir ab jàmmarloo bañ a am ñenn ci askan wi ñëwoon itam ngir seetaan si mayuñ leen ñu taxaw ci béréb boobu li koy firndeel sax mooy jamono yi nga xamante ne ministre Farba Senghor dafa amoon yéene rek wax ak taskatu xibaar yi ñu jëlee ko fa ci ni mu gën a gaaw. le procureur spécial de remettre le dossier à à euh, à la à la juridiction compétente. S'il vous plaît, amul benn militant bu PDS rek bu jot waxtaan ak ñi nga xamante ñooy taskatu xibaar yi naka noonu amul kenn si ñoom ku fekkee itam bi Karim Wade dugg ci biir kaso bi. Karim Wade ànd ak ñenn ci ñi ko daan jàppale ci liggéeyam dugg ci biir prison bi ñu gis ne beneen mbir mu bees mu doog a ni leen ko waxee tey nag foofa ak dal visite habituelle yi ñoo fa nemmeeku dispositif beek militant yooyu ñu fa gisoon bi ci guddi loola lépp euh, xëyul am foofa ca buntu rëbës moom Karim Wade nag ñu jàpp ko jàppale yeneen euh, juróom euh, benn nit bokk na ci ñoom bi boo Bourgi di actionnaire majoritaire compagnie Sénégal Airlines ñooñu yëngu ci wàllu dem ak dikk kii di Pape du Pouy bu société AHS waaye it Pierre ak Boba ancien directeur d'exploitation Air Afrique noonu Mbaye Ndiaye yaseeg naa la euh, nekkoon waaye it Euh, kii di Cheikh jàlloo taskatu xibaa bokk ci le pays ak Alioune Diassé du ñàkk laata journal bi jeex Fatima Ba euh, gën leen a xamleel ak euh, ñooñu ñu jàpp mbir mi nag daal di yëkkati ay kàddu kon jibal ay kaddu ci mbir moomu Bara Gaye bu parti démocratique sénégalais ci émission Faram Facce moom nag moom na kàddu yi mu ca wax jëmale Macky Sall li waral xëy na tey ji mënuñoo wekk na mu waree njiitu réew moomu moom Bara Gaye doon fi jiite nday PDS daal dina cay indi ay leeral waaye ba mu yëkkatee yooyey euh, kaddu it waa APR tontu nañ ko laata ñu dikk ci tontu li euh, Bara Gaye ci émission faram fàcce yi kaddu la ci dénk euh, Pam Ngagne Ndiaye. Abdou Diouf bi mu fi jógee dem Abdoulaye Wade daf ko signer statut ancien président de la République Abdou Diouf waroon di fayee ko 4 millions Abdoulaye Wade yóbbu ko ba 9 millions tey je te donne l'exclusivité de cette affaire là. Abdou Diouf Abdoulaye Wade bi mu wàccee ba léegi Macky Sall nanguwul a signer statut ancien ak li Abdoulaye Wade defal Macky Sall tey ñun ñi ànd ak Abdoulaye Wade nekk ay gor des ci parti bi te du addun du yàgg ba ñu fekki Macky Sall mais bu ñu la nee mën nañ respecté Macky Sall dañuy wax lu ñu neex quoi c'est pas normal. Mm-hmm. du ñu am benn respect ci moom lu ñu mën nag nañ ko def. et j'en assume l'entière responsabilité. man mm-hmm. maa ko wax maa ko j'assume l'entière responsabilité de ça. Bara Gaye yëkkati yooyu kàddu kon ci euh, émission bii di kon euh, faram fàccee euh, ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di waa APR ba mu daanelee ñoom it xëy nañu jubal si ni dañ koy daal di tontu yëkkati nañu seen i kàddu ñoom ndawi APR nag fu ci nekkoon ña nga fay waxee ñoom nag nee nañu faaw ñii di waa PDS dal ndax waruñoo mën a polémiquer ci jàppook Karim Wade ñu gis ni nekk ñàkk respect duñ ko mën a bàyyi muy jàllale muy jàll ci njiitu réew mi moom Macky Sall fa it dànkaafu kii di euh, baragay ñu déglu leen euh, ci micro signataire président Macky Sall dafa ñëw pour restaurer la république dafa ñëw pour diplomatie sénégalaise gën a incarner place am au niveau mondial au niveau international kon passeport diplomatique bu décidé ne ñu am droit am ko ñoom ñoo koy am sénégalais yi dañoo war a tàccu te dañoo tàccu léegi nag bu fekkente ne moom moo ñëw pour kaas loolu noonu moom baara gi foog naa ne que ñàkk xam la te ñàkk xamam mooy dof ci moom moom ci boppam ministre la fi woon kon le minimum mooy mu xam luy état mu xam luy ànd ak état beneen ponk bi ma bëggoon wax mooy def na ba génnee benn photo photo bi ñëpp xam nañ ne montage la homosexuel ñoom ñoo ko xam te Bara Gaye dama koy défier nee naa ko bés bu ma ko déggatee mu wax dinaa leen citeel seen homosexuel yi leen di topp yëpp ak ñu ñuy àndal guddeeg bëccëg dëkk ak ñoom nekk ak ñoom biir PDS lëmbe woon réew mi nag. maa ngi koy xaar ba mu tuddati fi président Macky saal dinaa taxaw si teel ko homosexuel yëpp parce que ñun xam nañ leen. dañu war a garder seen dignité Karim Wade mosu leen faale diir li mu fi yor nguur ñoom ku ci ne ci ñoom faalewu leen woon kippewu leen woon ay tubaabam ak ay xaritam la daan kii di def affaire am kon tey jii bul li amee yoon la ndaxte nag nguuru Sénégal day dox. dañ bëgg démocratie boo xamante ne nit yu am loxo yu set ñoo war a gérer képp ku ñu dénk alal wala ñu dénk la signature réew mi boo paree da nga war a wax lan nga ci def ñuy wax ñëpp nag ne dootuñu mayti kenn nga taxaw di am baat yu ñaaw wala yoo xamante ne ay saaga la nga koy teg ci institution présidentielle xaw ma lu nguur gi nar def mais ñun jeune APR ñun taxaw nañ temm te jël ci ay dispositions ay matuwaay yoo xamante ne du deñ parce que ñun dañu jàpp ne c'est pas la personne du président de la République mais c'est une institution de la République que tout le monde doit respecter parce que bu fekkee rek opposition la ñu def te yaakaar naa du lii ñun def nañ trois ans d'opposition yoo xam ne dégguñu Abdou Mbow responsable des jeunes dem di ŋàññi président Macky euh, Abdoulaye Wade di ko wax wax yu d'injure dégguñu treize mi nga mi nga xam ne moom mooy jiite ndaw étudiants yi di ŋàññ ci kaw der deru président yaakaar naa ne opposition di loolu ñu nag dañu nekk ay ndaw nekk ay républicain ñu xare ñuy yar ak teggin xam respect mag donc yaakaar naa ni tey Sénégal yi nga xam ne ñoom lañ nekk di ko doxal di ko defal. ñu dem ba Petersen ndax foofa marchand yi wax nañu ñoom nag ne nañ fa leen xalifa sàll xàllal ñoo lànk du ñu fa dem ndax béréb ba ñu nekk euh, waxtu yi maître Abdoulaye Wade ci boppam njiit la fi woon moom kon euh, moom moo leen ko mayoon ba ñu tàmbali woon fa ay liggéey kon liggéey yooyu du ñu nangu euh, ku ko dakkal kàddu yooyu la ñu yi la ñu ca toftal nag dañu ci ànd ak Fatou Bintou Conté Pape Fall. marchand ambulant yi nekk fii ci Petersen ña ngay fàttali nguur gi seen site bi nga xam ne kii di maître Abdoulaye Wade moom moo leen ko joxoon ci atum 2010. Abdoulaye Wade moo ñu ko jëleen may ñu ko mu nekk 12 800 mètres carrés dédié au marchand ambulant depuis booba ñu commencé ko euh, euh, euh, changement bi am régime bi changé ñu arrêté ko bañ ko arrêté ak léegi mi ngi nekk ci at ak juróom-ñetti fan. booba léegi ñun ñoo ko moom. ñu démarré chantier yi biñ ko démarré CD moo ko doon defar. ba taxawal fondement baa ngi nii def lépp. wante jamono ji dafa mel ni seen njott dafa ñaaw ci bile terrain bu nguur gi bees gi ñëwee arrêté bépp travaux bañ fa doon taxawal la. tax ñuy xalaat loolu dañu mosan toog ak maire bi fi ni bi ñu toogee ak moom moom mu ni fii Abdoulaye may na leen ko amatuma ci lu ma ciy wax yéen a ko moom bi changement régime bi amee mu waat ñu toog ak moom moom mu xamal ne ñun site boobu man maa arrêté travaux yi kon loolu day ñaawloo njor comme dafa wax ni moo ko arrêté. te moom am na fu muy tabax muy Félix Bouye foofu àggul mu arrêté waat fi yile marché ambulant ñenn ñi ñoom nag fa yéene ñoo jugee fii ci Petersen sit bi nga xam ne maire Khalifa Sall moom la tabax ñoom fas yéene ñu faa dem benn yoon. ñun ba ñuy dugg fii 2004 Papa Diop man bi ma ko bi ma mujjee deux à 2006 dama ko xamal ni ko man fii ma dugg muy Petersen gii. mag laa ñi ci tali bi ñi ci yëpp maa leen mag mat naa leen papa kon duut ma génn man di dem foofu te fii comme da ñoo waxal ni bu ñu koy defar yeneen prioritaire ñuy dox ba ñu may na ko kon ñun surtout bu euh, Félix Boué vraiment ñun intéressé wuñu ñun site bii moo ñu intéressé. ñoom marchand ambulant yi nekk fii ci Petersen ñoom la leen soxal jamono ji mooy ñu leeral leen ci site bii la tax ñu arrêté travaux yi te xam leen nag nguur gu bees gi ne ñoom site bi la ñoom ñoo ko moom te fas yéene ñu fee jugee. ni ñu leen ko waxee bu ñu dellusee ci mbirum Karim Wade nañ ko waxee jàpp nañu ko waaye te jàppale nañu ñeneen yeneen juróom-benn ñu tuddaale leen ci mbir mi kon jàppee leen kon ay complice am ñan lañu Fatima Ba. du Karim Wade rek la ñu yóbbu ci rëbës ndax juróom benn ci ay jegeñaaleem yoon teg na leen loxo muy Bibo Bourgi Pape Mamadou Pouy Pierre Aboba Mbaye Ndiaye Oumar Diallo ak Alioune Diassé ki si njëkk di Bibo Bourgi ci turam dëgg di Ibrahima Khalil Bourgi moom nag homme d'affaires la jege lool Karim Wade moom sénégalo-libanais bi yor na alal ju bëri ñu njort ne mook Karim Wade ñoo ko bokk actionnaire la ci ay société yu bëri yu nekk fii ci Sénégal waaye itam mooy actionnaire majoritaire yoon compagnie aérienne bii di Sénégal Airlines nga xamante ne Karim Wade moo ko taxawaloon bi mu fi nekkee jëwriñ bi ñu dénk wàllu jaww ji keneen ku topp Karim Wade ca Rëbës di Pape Mamadou Pouy moom nag associé la woon ci Ibrahima Khalil Bourgi di actionnaire itam ci société bi di AHS ñoom ñaar jege woon lool Karim Wade ndax Pape Mamadou Pouy mii sax bokkoon nag Karim Wade keneen ku ñu jàpp ne ci complice Karim Wade yi la bokk di directeur d'exploitation de la compagnie Afrique ba woon di Pierre Agouba moom nag nekkoon président conseil d'administration société bi di AHS ñu bëri sax jàpp ne Karim Wade moo ko fa tegoon moo tax it joué na fa role bu am solo mbay Ndiaye nekkoon fi directeur général des agences des aéroports du Sénégal ñu bëri xamee ko ci Mbaye Ndiaye ASECNA moom ci à peu près bu toll ci un milliard trois cent millions de francs CFA bu. bu waroon a dem ci société bi di d'apport moo tax ñu téye ko ndax moom mbay Ndiaye da daan fay ñaar fukk ak juróom-ñaari jege ñaale Karim Wade ay salaire weer wu ne te ñooñee bokkuñu woon ci agence bi ci kanamu enquêteurs yi sax moom jot naa xam ne ni da daan wéy ci ndigalu ministre de tutelle am ba woon di Karim Wade keneen itam ku bokk ci affaire Karim Wade boobee di Oumar Diallo di éditeur yéenekaay bi Le yi moom itam site bi di le sénégalais point net moom nag ku jege woon Karim Wade la lool yoroon na sax communication bi muy lancé la génération du concret moom Oumar jàlloo ñu gën ko xamee ci turu Cheikh Diallo waxoon na ci kanamu enquêteurs yi ne moom moom moom CD Média waaye enquêteurs yi bi ñu defee seen liggéey gis ni 30 pour cent dong la ci moom ti noonee la leen xam ne sax ni li ci des Karim Wade moo ko moom. ki ci mujj nag di Samba Diassé nekkoon employé ci Bibo Bourgi moom moom moom société bi société bi di aérobus service nekk ci aéroport Léopold se ngor te yor fa wàllu dem bekk dikk bi ci audition moom jot na xam ne ne dossier yi mu signé yëpp ci ndiggalu Bibo Bourgi la ko def ñoom ñooñee yëpp nag ak Karim Wade fanaan nañu seen guddi bu njëkk ca maison d'arrêt et de correction de Rebeuss leneen ci wàllu xibaar tabax yi nga xamante ni dañu koy tabax euh, te daal jaarul yoon mu mën a jur euh, musiba préfet bu Ndakaaru euh, xam leen na ne liggéey bi nga xamante ni ci la ñu war a vérifier yooyey tabax danañu ko tàmbali AIBC bi ñuy dëgmal kon la ñu ko jàpp wàcc seen i contrôleur sur le terrain di ko saytu daal ba xeeti jëf yii ni mel kenn dootu ko teg gisati nga ci wàllu bâtiment leneen ci wàllu xibaar mbirum ndox ñu yokk ko ba ñu jote ci askan wa nekkee daal la ñu daal di bëgg ñoom nag ñu nga duppee seen bopp les assoiffés de SDE maanaam ñi nga xamante ni daal nga kërug ndox mee leen euh, marloo euh, ci euh, wàll woowu nag ñoom nee nañ bu ñu moytul ñu déposer kalaame ca yoon plainte ki directeur général SDE ñoom waa SDE nag tontu na ñu xam ni li tàddeel liggéey bi rek moo di Abdourahmane Diouf mi fi nekkoon jiit ñu jëlee ko fii keneen remplacé ko moo waral kon yëf yi toll fii Aminata Mbaare Sow Diafara Ba dañoo tëral ab kuréel ngir wane seen naqar ci doxalinu kii du directeur général SDE ñu ngi woowee seen bopp les assoiffés de la SDE maanaam ñi SDE xañ ndox. ren euh, DG bu SONES ànd ak ñun def tournée ndax moom mënut a woon a gëm ni Dakar capital du Sénégal am na fi ci ay quartiers yu fi nekk yoo xam ne ndox amu fa mu ñëw ànd ak ñun def tournée ba mu constaté effectivement que ni zone yi amuñu ndox mu ànd ak ñun liggéey ci liggéey bu rafet. ba taxaw ci bañ ñu war a am ndox mu def lu ñuy tudd commande signé lettre de commande di mu ngi ko signé lettre de commande numéro 8 jox ko waa SDE eh, ñu bi ñu demee SDE pour SDE indil ñu ndox mi muy quartier yooyu ma la wax ne yu ci ëpp maanaam yëpp rek SDE xam nañu kat ñoom dañoo jot ndigalu ni bu ñu bu ñu def yooyu liggéey maanaam bu ñu indi ndox mi. ñëpp xam nañ ne le 5 avril digganteem ak 3 avril. ñaari fan rek moo ci am te trois avril ñëpp yëgoon nañ ne directeur boobu dañ ko war a changé bi ñu jotee commande boobu gis nañ ne commande bu bu takku la 192 millions de francs CFA moom lañ jot tout d'un coup ñu xool ndege marché yi xam ne SONES moom la ñu jox est-ce que loolu mën na ci dugg. alors bi ñu ko gëstoo càmbar ko gis nañ ne loolu day génn marché bi nga xam ne moom la ñu SONES dépassé na marché bi nga xam ne moom la ñu SONES joxoon te léegi léegi il faut ñu discuter ak waa SONES pour xam. naka la ñuy régler problème boobu et tant que euh, réglé wuñu ñoom seen changement boobu ak ñi nga xam ne ñoo war a ñëw léegi diriger SONES pour régler problème dafay jafe. lii nag merloo ñi nga xam ni ñoo bokkee ci kuréel googu looloo waral sax nee na daañu yóbbu ci yoon ki di directeur général SDE waaye ñi nekkee foofu ci SDE ne lii du dara fii ak fan rek daañu saafara seen métit yaakaar nañ ne euh, xëy na balaa semaine bi di jeex sax nañ ci trouver solution ba régler problème boobu te ma rappeler problème boobu. commande boobu rek la concerné muy 192 millions yooyu nga xam ne ñu ngi ko signé le avril euh, projet bi nag bu antoo kër yu bëri yi nekk foofu ci banlieue daañu am ay robinet euh, feuille yi ñuy won nag di lettre bi nga xam ni Abdourahmane Diouf nekkoon fi directeur général daal di woon na ko bind kii di directeur général SDE ngir xamal ne ko liggéey yooyee mën nañ ko tàmmali. kon mooy doon grand serigne de Dakar pal gi nag notable lébu danañu ci amalam ndaje tey jii ngir xam ban bés eh, la ñu koy eh, jàpp eh, tur wi nag askanu ko lébu di ko xaar naka noonu li nga xamante ni ñu ngi koy séntu ci grand serigne bu bees boobu Senelec liggéeykat yi ñoom xam le ni ci ngoonu ko tey jii bu ñeenti waxtu tegee fanweeri simili danañu def ab assemblée générale fan yéle dañoo yëngoon yëngal kon gannaaw ba ñu joxoñee daal seen direction ci na yore kër gi seeni i revendication it euh, ñu ci doon dikk ngoonuk tey ji kon euh, la ñu fas yéene def seen assemblée général bu ñeenti waxtu demee ba tekk euh, fanweeri simili bis bi àdduna bi jagleel kon wàllu hémophile yi jàngoro la màggal nañu ko fii ci Sénégal ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy dund ak feebar bi ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gën leen a gestu ndax euh, sonn nañu euh, paj mi euh, seer na te saa su nekk li nga xamante ni moom la ñu yittewoo du ñu ko am ba daal ñu def benn journée de sensibilisation ci centre national de transfusion sanguine foofa ñuy maye deret Fatou Guinée dem teew fond ci ak Khadim Ndiaye ñàkk jot ci am pàcc nekk na loo xamante ni hémophile yi ci Sénégal ñi ngi koy yàgg a jooytu euh, tey ji nag ñuy màggal seen bis bi nga xamante ne at mu jot lañu koy def mu yemook nag juróom fukki atu fédération mondiale de l'hémophilie yi sàkku nañu ci kilifa yi ñu gestu leen bu baax. traitement bi cher na euh, existé wul Sénégal euh, ku feebar bëgg faju mënoo faju donc dafa nekk loo xam ne dafa metti donc il faut que vraiment que état bi tamit. ak liggéey bi ñu bi nga xam ne def nañ ko fii yëpp que état bi euh, jël seen seen engagement yi euh, gérer problème mu traitement au Sénégal parce que mënuñu considérer que que dañoo bokk ci chaîne de santé bi euh, war a war a faju ñu nekk ay doomu réew mi te état bi bëggul def dara pour que faj boobu mu am. ngir faju ci jàngoro ji faw nga am koppar yu tëree hémophilie nag bokk na ci li ñu duppee maladie ak chroniques ñoom sax daan nañu xayma woon ab xaalis ñu gis rek ni kilifa yi buñ ci taxawee seenu paj dana yomb. defoon nañ benn évaluation at euh, at centre national transfusion at euh, jëbal ko waa ministère de la santé évaluation boobu dañ considéré ko pour ñu am stock de sécurité bu ndaw mooy stock minimal boo xam ne sax juste pour que urgence su amee ñu mun ko ci def ñu évalué woon ko autour de trois cent millions par an donc ñu estimé ne que par rapport à à à nombre d'hémophiles yi fi nekk yi ñuy traité ak par rapport à fréquence su saignement yeeg yooyu noonu. Euh, évaluation boobu moom mooy vraiment évaluation bu minimal boo xamee ne moom la ñu mën a moom la ñu mën a ñaan état bi def lii nag jàngoro yu ndono la jigéen bi moo koy wàll doomam ju góor mbootaay gi ëmb nag hémophile yi fii ci Sénégal xayma nañu leen ci junni ak ñaari téeméer gannaaw loolu nag ñi bootu ci mbootaay gi ñu ngi sàkku tamit ñu jàppale leen bu baax ci jafe-jafe ñiy jànkonteel lu ci mel ni bëgg a liggéey fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak ñeent ci weeruk avril ay gëstukat danañu wàcc kon ci mbedd mi loolu nag du yem ci Sénégal ci euh, réew yu bari euh, kon lay euh, doon ngir xaymba li nga xamante ni moom moo di wàllu géej gi ni muy lekkee kon tefes gi rawatina ci réew yi nga xamante ni dañoo féetee kon foo xamante ni dañuy am tefes ak lu ni mel loola daal la ñu fas yéene jàngat réseau scientifique yooyu danañu tàmbali kon seen liggéey boobu ci érosion côtière danañu ko def nag. Euh, bu weesoo Sénégal ci yeneen fukki réew euh, ndaje moomu ñu xëy dox ko tey jii Maimouna Ndiaye Suzanne Seck ak euh, Mohamed Dieng teewoon fa. dooleel jéego yi woyofal bu baax nekk nu ñu féete ci tefes gi moo tax a jug Molowa di ab kuréel guy saytu lépp lu aaju ci wàll wi. fukki dëkk ak benn ñoo ko sos ak ndimbalu UEMOA kuréel googu nga xam ni dafa ëmb ay dëkk yu bare ci Afrique de l'Ouest Euh, kuréel bi nag day liggéey si li ñuy wax zone côtière bi bu ngeen bu ngeen xoolee zone côtière mooy maanaam euh, gox yi nga xam ni dafa dafa jege géej gi am na ay phénomène de érosion côtière yu bëri yu ñu yu ñu gis si si dëkk yi du Sénégal rek ay ay mbënd yoo xam ni dinañu gis ndox mi di dem si kër yi di yàq ay usine ak yooyu loolu euh, la mission bi di jéem a gëstu mbébétu kuréel gi nag mooy wàññi jafe-jafe yi littoral bi di indi saa su dëkk bu si nekk di nga am li ñuy wax point focal maanaam euh, kuréel boo xam ni moom mooy saytu lépp loo xam ni dina concerner zone côtière bi si dëkkam. gëstu loo xam ne rek mën na mën na gaañ ñi dëkk si booru euh, si zone yooyu wala wala tamit. Euh, bërëbu liggéeyukaay wala bërëb dëkkukaay yi nga xam ne nekk na si booru ndox mi naka lañu mën a amee Euh, si euh, jamono ji nga xam ni moom moo moom moo gën information yi war pour mën a éviter euh, phénomène yooyu bett ñi dëkk si gox yooyu. ci ñaari bés lu ëpp téeméeri kàngam yu seen xam-xam màcc ci wàll wi dinañu boole seeni xalaat bu ñu ci jógee séntu nañu beneen yorinu littoral bi. tàggat yaram euh, quinzième journée championnat Ligue 1 bi daat nañu koy euh, joué ci stade Demba Diop euh, dig nag ak yego jàpp nañu ni diggante boobu ndam demu ca ndam di dikku ca ku ci ne dugalul dara match nul la waaye it ñaari tari Linguère ñoom it match nul kon la ñu daal di def Cheikh Sade bu jara di ci indi leeral caaxi yëngatuwul demb sa stade Demba Diop match Duc ak Yogo bi mujjee si temboo neex woon tamit si seetaan muy firnde ne Duc amul woon lu mu bëgg si pàcc championnat bu njëkk bi. poñ yi ma bëggoon am ci fukkeelu fan yi ak juróom amuma ko ndax ci dama doon wax ne su ma amee ñaar fukki poñ ak juróom euh, dina baax lool. chantier bi nga xam ne moom moom ma soxal fi ñu toll nii mooy xoolaat défense équipe bi bu baax a baax a baax ci trêve bi ndax trêve bi ñëw na ci jamono moment bi mu waree. waaye yëgoo ñoom jot nañ si seen mbébét. match yi passé yëpp dañ doon jouer deuxième heure euh, changement de temps bi ñu jouer première heure peut-être euh, ça a beaucoup joué sur les gosses ak euh, naaj bi suñu objectif c'est le donc foofu euh, championnat bi yemoon ñu wàcc kon euh, pour ñun atteindre nañ objectif première partie saison bi. si beneen jongante bi doxoon diggante ñaari tali ak Linguère ñi teewee match bi gis nañu tuuti football waaye kenn dugalul ñaari tali weddiwul jafe mu nekkee. wante ñu ngi am yaakaar si li des. dara équipe bu baax la te am nañ déplacement bu baax euh, indil ñu ay jafe-jafe parce que ay joueurs yu baax la ñu jógee si daanu comme ñun ñu jógee si daanu moo tax vraiment tey euh, amoon na match bu métti. yaakaar naa ne supporters ñu jàpp la ba ñu jógaat. waa Linguère ñoom bégg nañ seen parcours bi. ñu dem nii ba am 20 points ci championnat bi euh, phase à euh, phase euh, aller bi mu def ñu encore benn match de que du ñu def loolu sant yàlla gërëm yàlla ci loolu parce que c'était pas évident. Linguère moom bokk na si mbetteel yu phase aller bi ndax ñoom ñu ngi si juróom-benni place classement Ligue 1 bi wutee ak waa ñaari tali ñu soriwul ñu nar a wàcc. Cheikh Sadibou Diarra gannaaw wàllu kon football euh, basketball ci jigéen ñi euh, DUC ak AS Ville Dakar ñoom nag euh, qualifié nañu ci demi-finale coupe arc-en-ciel ñan la ñu éliminé DUC éliminé Jeanne d'Arc 65 52 kon la ko génnee AS Ville daal di éliminé Diso ñoom dañoo dal di duma Diso Diso kon duma yu mitti 107 10 noonu la boobu jongante mujjee quart de finale yi nag danañu ko wéyal ci ajuma ji jàpp nañu ni bu boobaa. bu juróomi waxtu tegee fanweeri simili bopp dana dalal Sibak ñoom ñaan ñooy daje euh, juróom-ñaari waxtu Izo ak Jaraaf danañu euh, jongante leneen ci wàllu xibaar pàcc bu mujj bi kon ci la ñu yàgg si léegi léegi yéen kaay la ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Pape Samba yëglekaay yi may tudd nañu ma dar yii fii yële fële ñu wanandoo ko téléspectateurs yi dooree ko ci Sud Quotidien enquête ak le soleil ñoo bokk lu ñu wax moo di lan li ñëpp doon njort li ñu bëri doon xaar ak li bett ñu bëri ci gàttal moo di Karim Wade ma nga ca kaso bu rëbës yéenekaay na nga ko waxee doore ko Sud Quotidien mi ñu xëy xamal ne Karim Wade jàpp nañu ko enquête yéenekaay la mu moo di doomu mi ci wax ju yam ji yam rek ci Karim Wade inculpé nañ ko ba dóor ko mandat dépôt jël ko jàllale ko fi nga xamante ne ji moo di rëbës direct info ne ñu Karim Wade ma nga kaso bu rëbës te nag bu ñu sàgganul nar na yàgg la tax journal bi dellu siwaat na ci observateur moom xëy dellu siwaat ci Karim Wade kañ la dugg rëbës ci biir yéene kaay bi ña ngi jàng ne bi 23 heures demee ba fegg euh, juróom fukki minutes ak juróom ci ginnaaw Karim Wade yëf yi yamul foofee leen ne ne kii di Bibo Bourgi nga xamante ne ji dañ leen di toppee wàllu complicité ci la ñuy toppee Karim Wade journal nga xam ne moo ko ne ca nga jëm euh, Bibo Bourgi fa taxaw la doon saw te nag deret la doon saw ñi nga xamante ne ñoom lañ jàppandoo Karim Wade yi jàpp leen Cheikh Diallo ca la bokk bokk Mbaye Ndiaye Asegna ca la bokk Alioune Badara euh, Alioune Samba Diassa ca la bokk Pape Mamadou Pouy ca la bokk Bibo Bourge ca la bokk Pierre ak Boba ca la bokk ak Alioune Kona Konaré yéen a kaay bi ñii ñii ñëpp kon jàpp euh, koy toppee ne moom Karim Wade moom la amee ci teranga ñaari société ñoo ko ca gën a ban la AHS yi nga xamante ji ñoo la dugal Karim Wade ca rëbës bu doon nañu jàpp ne sociétés yi ñooy caabi ndax li ñu koy toppee toll ci 694 milliards juróom-benni téeméeri milliards ak juróom-benn ñeent fukk ak ñeent yéen a kaay bi nañu ñaari société yooyee la ñuy peser maanaam seenub na ci li nga xamante di ñeenti téeméeri milliards li tax le quotidien jàpp ne ñooy caabi ju dugal Karim Wade ca kaso bu Rebeuss la yéen a kaay moom xëy mel ne ku ko yëram ne ñu gis leen photo Karim Wade bi journal bi dañu lii altine woon buntu kër baayam ca point e Karim Wade kanam gu triste gi dafa meloon ne ko a kaay dee li doy waar moo di ca sommet ba la doore wàcc ba ci njom baxtal yi ba tey euh, li nga xamante ne ji mooy Karim Wade ki kàddoom laata kon ñu koy yóbbu ca kaso bu Rebeuss la leer na daf ne leen ñii dañoo amoon euh, yéene dugal ma ci kaso bi nañu ma bàyyi rek ñu xëy xibaar ndax it ñi nga xamante ne ji ñi ngi leen di toppee wàllu complicité muy Karim Wade ak ñooñam ñoo ñett ña ca kaso ba yéene kaay bi la euh, ñoom leen tëj ca kaso ba bi minuit di jot sa populaire moo wax loolee libération ne la taral yëf nag moo di commission d'instruction président ba moom moo gën taral yëf ba tax Karim Wade daanaka taxawaaloo la bàyyi ba di Abdoulaye Wade ca Paris la France ga mu nekk mer mu rëy la fa nekkee libération moo ko wax nee na lii Macky moom moo ko ko teg ba tey ñu fekk ko ci xët mu njëkk réew mi quotidien journal bi na ñu Abdoulaye Wade mer na mer na te nag nee na dina ñëw ñëw Ndakaaru defante ko ak ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo bëgg a sànq doomam journal bi nañu euh, Ouattara moom moo ko ci xaw a disiyaadi waaye Abdoulaye Wade la mu ngankoon ba fi mu nekk nii bàyyiwu ko ma bàyyi loolee pap ma bàyyi loola ko bàyyi loo ko téléspectateurs yi te ñu dugg ci wàllu tàggat yaram jox ma xët mu njëkk waa sport yéen kaay bi xëy di ak ñun ci gaynde yekk seen camp préparation journal bi nañu ñaari réew la ñu teg ay gët jamono ji mooy fan Belgique ak fi nga xam ne moo di France journal bi nañu Bruxelles ak Paris moom la gaynde yi ciblé ngir dem fa euh, di tàggatu

lamb ji affaire bi moom la Salbe Ndom yamu ca de jàpp leen nee na combat Balla Gaye 2 Triple Less mooy doomi Double Less ji ak Tapha Tine borom taq ci yëpp Salbe Ndom nee na lamb jooje bëre du ca am jërë ngeen jëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy euh, jaajëfal mbokki téléspectateurs yi ñu leen di gërëm ngërëmande bi kon ak euh, TFM fii la yem ak yéen euh, ci xibaaru digg ba bëccëg gi incha allah 19h 20 rédaction bi dana des waat ak yéen ci yeneen i xibaar ñu yendu jàmm.